asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen bal xaq te sàkk ci yéen ñu fas yéene ànd ak yéen ci diiru weeru koor yi ci naafile yi ci guddi gu nekk di ko sukkandikoo ci téereb sëriñ Suhaybu Mbàkke bu tudd Qurratul Ayni di dimbali koo kàttanul sunu borom subhaanahu wa njëkk loolu ñuy saaf ci yéen képp koo xam ne abonné goo ci seen youtube bii da Aynul Hayaat nga daal li gaaw daal ci abonné ngir buñ dugalee naafile yi ngeen mën cee jot ak mbooleem yi am njëriñ dafay am ci bëccëgu weeru koor bi yëpp ngeen mën cee jot naafila guddi fukkeel ga ak benn nag ñeenti rakka la rakka bu ci ne faatiha benn yoon ak inna anzalnaahu ba saar wi jeex juróom-ñaari yoon ak qul yaa ayyuhal ba saar wi juróom-ñaari yoon ak qul huwallaahu ahad ba saar wi jeex juróom-ñaari yoon boo sëlmalee nga wax laa xawla wala quwata illa billahi al aliyi juróom-ñaar fukki yoon julli ci yonente bi sallallahu taala wa sallama gooman juróom-ñaar fukki yoon sëriñ bi nee na julli googa day ko ko def dees na ko jéggal bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj te laaye ju ci ne dees na ko ca bindal tuyaabay jaamu yàlla ak am at te dana mel ne itam ku goreel junniy jaam saraxe junniy dinaar reggal junni ñu xiif wodd junni ñu rafle te lépp lu nekk ci kaw suuf dana ko jéggalul yàlla moo xam lu wow la wala lu tooy te dees na ko musal ci balaa yi ak fitna aku xiif aku ràgg ak sàddum jinne te dees na ko musal ci mettitu dee te dana tàbbi na te deesu ko xisaab bu ko defee kon ñuy ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mu nangu ñu sunu koor ak sunuy jaam yàlla ci barkeb Sayxul Xadiim جرنجن جب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا